Euh, c'est pourquoi il n'y a pas de vraie justice et tant que ces et, tant que ces juges et ces procureurs sont là, il n'y aura pas de justice exactement. Voilà, lolu benen fenêtre là. D'ailleurs, daf may l'occasion occasion <laughs> ma laalalé amna ben question bi me tenir au cœur. C'est les nominations de Bassou Diomaye Non, non, c'est nomination. nominations. voilà. administration mais, peut-être il a raison. Hein. si il y a le même procureur qui est là-bas, il y a les mêmes magistrats. Ti demande à tessal ñofa Voilà alors donc nous ngi exactement. maintenant si on nous a parlé de réformer et de moderniser la justice c'est vrai que keroog joxe nañu euh, le rapport ça tarde à à être exécuté mais dañuy jàpp ni que le même la même justice qui fa hein. et elle a elle a raison c'est pas c' voilà C'est la même justice qui fa nekk ba léegi le président Diomaye mu jox mu un bilan de ces 100 jours bu mu à la tête de ce pays avec les mêmes les mêmes magistrats les mêmes procureurs. dans l' administration les membres de APR ñoo fa nekk nga gis ay ministre yow ñu fal la yow ñu nommé la ministre au lieu que nga dem. fal ñi la doon jàppale ci xeex bi bi ngeen nekkee opposant yow ngay fal ay membre non loolu dina si ñëw ak taw ministère de la santé bien si si ñëw donc mi noonu foofu la ñuy waxee point là euh, denc ko ba si kanam tuuti euh, donc jàppale itam ki nga xam ne que moo di euh, Bilal Diatta l' alliance pour la république APR nag jamono ji ñu ngi daal di sàkku si procureur mu daal di koy gaaw tegal ni loxo waaye te mu daal di tëj une enquête si li nga xam ni itam kàddu yi nga xam ni itam yëkki na ko daal di koy jëmale si ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko que ni Macky jéemoon ay pexe pour daal di jël bakkanu ki nga xam ne rek mu di Ousmane Sonko mais euh, mais may ma tuuti ma jox la fenêtre boobu. Ah, allez-y parce que il faut ngeen xam ni. Bilal Diatta lu mu wax bepp sénégalais daanoo na daan na interroger ci bopam hmm. derrière sa tête. que veut Macky Sall envers Sonko. boy gisee les images là depuis 2021, acharnement contre Sonko da ngay tu te poses parfois la question il n'est pas le seul hein. même nous les journalistes qui vont dans, sur, dans les, sur terrain là, nous sommes dans les, les lieux là, les manifestations là. Parfois, tu te poses la question, que veut Macky Sall C'est des interrogations que les Sénégalais se posaient quotidiennement. Peut-être Bilal, il l'a dit publiquement. Mais moi, toi, moi, man, moi, Kenan, kenen. Les gens se posaient ces questions-là. Maki, est-ce que Douraï Sonko Maki, est-ce que Fili Sonko Maki, est-ce que Fili Djamai Maki, est-ce que Fili Sonko en voyant les images c'est les images qui parlent d'elles-mêmes sëñ bi. Bilal dafa jël ay ay épisodes Bilal ay épisodes la jël. alors oh, c'est clair Alpha. di ko tegale di expliquer sénégalais yi moo tax mu génnee conclusion ni boobu ni Macky Sall dafa bëggoon rey Sonko il a pris des images. moo tax ma ne la ces images là ñun ñëpp ñoo ko fekkee ñun dañ ko fekkee ñun man mii di wax Fallou yow tu peux m'en témoigner. ñun ñëpp fekkee nañu les images là mm. contre Sonko. Mm. Parfois, tu te poses la question, est-ce que Sonko dina fi... survivre. Dina survivre. Hein. Est-ce que Sonko dina survivre C'est clair, enfin. Moi, ah. tax bi la jaata di wax. alors c'est clair waa APR na ñoom dañoo fidèle nag ba tey ngi fidèle c'est Macky Sall alors ñu daal di jàll ci len Arfan euh, sànq euh, tu l'as brossé euh, si li nga xam ne que moo administration dañoo seetlu ni Arfan tët len changer changé. Ouais, bataille les membres de la ñi aussi euh, ñi nga xam ni itam da fal faluk yaa neex mais est-ce que ñooñu euh, yow mu leen fa fait su fekkee ni en place donc sécurisé à travers les CDI et tant d'autres et tant d'autres concrètement à fond. bi man damay poser question damay poser question directement le président de la République son excellence Bassirou Gamay Faye. Hmm. parce que les ministres là franchement on comprend pas. ay sénégalais ñoo xeex ba xeex jotee sénégalais dañoo xeex joxe seen bakkan am ñu rëcc ñàkk seen bakkan dem dootuñu ñëwaat ba abadan am na ñu jëlee fa ay woy laago ay handicap ba faw am na ñoo xam ne toj nañu seen bët benn bët mooy dox am na ñoo xam ne toj nañu seen bopp ba léegi ñu ngi faju am na ñu ñu yóbbu Maroc pour ñu faju ji ba léegi wéraguñu je te parle des faits yu am te donc les sénégalais ñoo xeex ba donc sénégalais ils pare nommé ay ministre ces ministres la bàyyi ñu doon xeex di ay membre yu APR. yu Benno Bokk non non non au sérieux au sérieux ay nit ñoo fi projet PASTEF ay projet Adji projet PASTEF projet Adji hmm. pourtant c'est des membres de Benno Bokk Yaakaar ñoo doon wax bu ma joxee tour bi ñoom xam nañ ko ki doon taxaw fii ki nekkoon ci kud kud di naan projet Adji sar la ñu jox ko promotion yóbbu yóbbu ko kii ñi ñuy wax ñu ñu non voilà il a démissionné. Le ministère de la santé même chose. dit aussi à Saint-Louis Ousmane Sonko. mais c'est comme ça. que que Moi il faut que nous baillons les nominations là ay nit ay nous mais ñëw euh, nomination mais enfin, est ce que Diomaye est responsable parce que. ba ma doon nawee ba pare nee la kii ak kii nga fay teg. déedéet mais dafa jox indépendance. waxuma jox waxuma Diomaye est responsable. ok dama ne. mais mais enfin, enfin, dama ne non euh, il faut mu bàyyi cette nomination oui il faut que mu bàyyi xel si nomination yi su demee pour mu jox leen confiance comme pour mu jox leen li nga xam nekk mooy entière. Mhm. indépendance da leen bàyyi ñu teg fa ku leen neex Arfan ñu xool kii ak kii moomu doy bokk na wala bokku si xeex bi kii moomu doy ku ñu liggéey bu bàyyi leen lu la neex déedéet doon même ministre ba pare nga bàyyi ko ci lu ko neex Arfan loolu ça n'existe pas ça n'existe dans aucun pays au moins monde ministre da nga koy yow yaa nga toog ni ministre Macky Sall yi ñoom doon régal Macky Sall yaa nga ko wax arfa dedet du contexte boobu il faut nga comprendre Fallou il faut pas nga roubé débat bi da ngay comprendre fi may waxee dama ne ci nomination yooyu ci liggéey ngay wax ministre buy liggéey da nga koy bàyyi mu liggéey

parce qu'il y a des cafards dans leur ministère. Je parle de nomination. Non, mais si il faut que Je parle de nomination. Enfin, si on le ministre de la Santé, exemple. Yo, exemple, si le le ministre de la Santé, je ne dois pas le comme je suis secrétaire. Mais je ne secrétaire. pas C'est pas comme ça. Si je suis membre appel aussi, je ne dois pas parce que je dois. Fallo, il faut que nous comprenions ni faut ni Ok. On gouverne un pays avec des personnes dignes de confiance. On ne gouverne pas un pays avec de la gijanie. Voilà, tu as diversion. Hmm nous l'avons divertir look, nga jël de di la nommer tu ne peux pas diriger un pays comme ça Il faut waxee nit da ngay diriger un pays avec des personnes de confiance mhm. même de les ministères Bon, nous avons am ay bloqué là dans les institutions là dans l'Assemblée assemblée nationale nous y ni que am crise institutionnelle lan pour y avoir parce qu'il y a des cafards qui dorment dans les ministères là dans les directions là ba Et ay nit ñu pour soutenir ce projet de PASTEF là nous la ñuy dans les directions là ba léegi ñoom dans les ministères je ne parle pas de CDI Dis-moi quoi am CDI C'est quoi am CDI là wax Voilà quoi am contrat dans un ministère voilà dans une direction mais a que da dans koy auditer nga xam recrutement nan la demee il peut avoir un CDI sans aucun diplôme. Hmm. Parce qu'à un moment donné, Macky Sall ci yaamaneex la doon fal ñi ñi ah da ngay gis ay nit ñu yóbbu poste boo xamante la législation nationale bi dafa ne poste bi fa nga am maîtrise balaa nga koy nga koy incarner Macky Sall jël ay ñu amul bac sax wala ñu am bac hmm. donc kooku bu amee bac ba pare am CDI yow boo ñëwee en tant que ministre wala directeur général looy def da ngay andi inspection bi général d'état nga ne ko kay kay kay nga auditeur ma ci sama personnel yi ma xam recrutement yan anam lañ leen recruter est-ce que bépp xam dañoo mériter sama recrutement hmm. ak poste bi lu mu laaj ba xam méngoo na ak recrutement bu méngoo la nga bàyyi ko mu maintenir poste am parce que c'est ça aussi le Sénégal dans la démocratie maintenant ñun lu ñuy wax il faut que nga comprendre sénégalais yi fu ñuy waxee am na ay nit ñoo xamante ne ay ruubekat lañu c'est pas des travailleurs de ñoo am ay CDI togg seen deux fois koy gis mu deux trois fois. Hmm. ba pare tu te demandes même bu am bu mu am ci bërëb boobu lan mooy liggéeyam foofu lan hmm. c'est là où on parle non seulement amul fa mu am CDI salaire bu duuf foofu la maintenant bu fekkee yow dañ la fal wala dañ la nommé ki ministère wala ñu nommé la ci direction nga ñu fekke fa ay ruubekat té sénégalais ragné leen ci ci moment bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu mu Macky Sall nekkoon fi comme mm, président mm, de la République mm. mais bo ñëwee ñooñu do photo ak ñom bam né fam di leen jox ay promotion comme lu xéwé au niveau du coup le ministre de la santé ba ñu ñuy jëf ko après ngeen génn weddi loolu nga ne loolu amul te sénégalais gis ko à travers des des photos mais foofu la ñuy waxee bu fekkee ñu la doon saaga démb ay mu jaral sénégalais di ci teg seen bakkan xeex pour jëlee leen fii yow falu nga nga continuer di jël ñooñu di leen fal ñu la doon saaga démb maintenant nous on se pose des questions fa la ñu jëm est-ce que xeex bu ñu doon xeex est-ce que jar na ko. <laughs> man c'est là où j'ai dit il faut que nous nous xoolaat bu nous ñu il faut que nous xoolaat bu baax ñu alors c'est clair parce que ce projet là a été soutenu par des sénégalais hmm. c'est vrai que Daniel a soutenu le projet parce que sort soxla ay poste mais amna sénégalais yi donnent rien franchement pour nous ñu ne a alors c'est clair amna na ay sénégalais yi doon défendre Sonko au moment où personne loger défendre Sonko Macky Sall bu fi nekkoon yow gis na numu démé hmm. même bët yun la presse néw nañu ñun ay journalistes yi doon taxaw jamono bobu di défendre Sonko parce que tous les journalistes étaient menacés boo waxee xefee sax ñu jàpp la yóbbu la kaso on a emprisonné combien de journalistes hmm. ñu doon tok ci plateau yi di wax mais ñakul ñun dañ doon deful suñu liguey convenablement malgré la menace qui planait sur nos têtes ñun ñu ko doon defee au niveau de la presse non la ko sénégalais lambda bi doon bu ko doon ko defee ci la rue donc moi il faut nga yërëm ñooñu. alors c'est clair buñ la falé wala bu fekkee sénégalais fal nañ la boy nommé na nga xam ñi ngay nommé say nit dënd ngay nommé mais compétence il y a pas mais euh, tu oses tu oses me dire. au sein de PASSEF, il y a pas des personnes compétentes ñu mëna jël place ñooñu mais si. voilà au sein de la coalition Diomaye il y a pas des personnes compétentes ñu mëna remplacer ñooñu mais si il y a des personnes compétentes. Donc il n'y a, pas... a, pas... Bernard seulement qui a été à l'école. Tout le monde a été à l'école. Tout le monde a obtenu des diplômes, quelque part. Il y a des expérimentés partout. Ils sont là. dans la touche. Maintenant, vous faites que vous avez changé l'entête. Le ministère, vous avez changé le ministre. Mais le ministre ne peut pas travailler parce que mais dans le roue de ce ministre vous faites direction da nga le directeur général nga les cafards qui sont là-bas mais il peut pas travailler convenablement les bâtons de ce directeur là la ñuy Macky Sall il n'avait pas cette pitié là calculer parce que je vois le, le, le, régime de Diomaye, je vois le premier ministre et son administration, euh, euh, euh, euh gouvernement Ousmane Sonko. Ils sont tellement calculatifs. Ça dit que de calculer pour que les Sénégalais aient non, ils c'est de la politique comme Macky Sall. Il ne faut pas regarder ça. Dis-moi, mythe, d'aller sa responsabilité, bon mot. Amrad, quand il était venu, il faut l'administration de Abdou Diouf. Parce que faut faire ce qu'il veut. Ce qu'il Macky quand il est venu, il n'avait pas de piqué pour l'administration de Ab Pourquoi il y a de la piqué ou de calculer pour l'administration de Macky Sall continue de continuer maintenir cette administration de Macky Sall. alors c' est clair euh, donc il da ngay jël sa responsabilité ba mu mët sët. Mm-hmm. boo naxa rahas yo raxas yow da nga yor bale bi ngay campagne da nga yor bale. Mm. man ma yokkal la benn ma ne la ak ay serviette ñu topp si ginnaaw bale bi man maa la yokkal boobu fabeere bi mais yow bi ngay campagne da nga yor bale ba sénégalais tàccu fépp foo sandi bàcc mu tag sénégalais lambda bi sa day liggéey jël bale lonk ko ci mbagam dina jomaay moo ñu ko tàmmal wala sonko dañu yor bale. mais est-ce que mais yow boo yoree bale. mais mais da nga may déglu xam nga da nga may déglu mais yaa ngi jugé si trois mois.